ñëwoon tey pour euh, xoolal sunu bopp ubbite bi nga xam ne tàmbale na ci hôtel yi fii ci Saly ñu tudde ko ci nasaraan relance touristique après Covid ndax xam ngeen mbas mi bi mu tàmbalee ci réew mi ci mois de mars dañu tëjoon lépp luy hôtel waaye tamit tëj lépp luy aéroport donc hôtel yi toog nañu mat ñett ba ñeenti weer yoo xam ne kenn ubbiwu ci semaine bii la ñu moo taxoon ma waroon ñëw pour xool est-ce que charte yi ñu tëral ci waru aar kaaraange askan wi est-ce que charte yi ñu koy doxal bi ci njëkk mooy li ñu tuddee protocole sanitaire mooy natt tàngaayu yaram yi mooy raxas loxo yi mooy fexe ba nit ñi seen jegeyantoo du weesu dayo loolu yëpp nekk loo xam ne dama ko xaatimoon ci ab benn bataaxel ma jox ko hôtel yi ne lii war ko seeñ ñu ne hôtel yi ni ngay tollu day laaj nga am docteur bu nekk ci biir hôtel bi mbaa infirmier loolu aussi gis naa ne fii ñu nekk ci sali ñoom respecté nañu